jërëjëf ji ngi nuyu ñëpp. monsieur le ministre mu ne ñi ngi nuyu ñëpp. di massawu ñëpp. mu ne ñi ngi massawu ñëpp. di jiital ci nuyoo bi. ministre Youssou Ndour nee na ñi ngi jiital ci nuyoo bi. sunu kilifa. sunu kilifa. bi nga xam ne que mooy Mbagnick Ndiaye. sunu kilifa bi nga xam ne mooy Mbagnick Ndiaye. yore ministère de la culture. yore ministère de la culture. taxaw fii représenté état bu Sénégal. nee na mu taxaw fii nag représenté fi état bu Sénégal. ñu ngi fi nekk aussi ak Seydou Gueye. nee na ñu ngi fi nekk ak Seydou Gueye. Euh, ministre bi nga xam ne que moom moo yore parole gouvernement bi. ministre bi nga xam ne moom moo yor baatu gouvernement bi. ànd fi aussi ak conseillers yi. mu ne mu ànd fi tamit ak conseillers yi. kon nag ñi xam ne ne que Sénégal ba mu mat. ñu ne daal ñu xam ni Sénégal ba mu mat. ci aar ak ci politique. ci aar ak ci politique. ak état ak état. dañu taxaw. danoo taxaw. ki taxaw li ñu taxaw nag. ñu ne li ñu taxaw nag. ki ko waral moom la. ki ko waral moom la. Moussa def na wallam mu ne Moussa Ngom def na wàllam. panafricaniste la. mu ne panafricaniste la ku bëgg Afrique la. te ni mu ko wanee ci peuple yi nga xam ne ñoo nekk diggante Sénégal ak gambi nee na nag ci ni ko Moussa wonee ci diggante Sénégal ak Gambie. avant état yi. avant état yi. Moussa wax na ak peuple yi. Moussa wax na ak peuple Sénégal ak peuple Gambie. comme ni ko léegi ki nga xam moo fi toogal euh, Gambia ci ambassade bi waxee. mu ne comme ni nga xam ne ki fi toogal Gambie ci ambassade bi fii ci Sénégal ni mu ko waxee. message la fi bàyyi. nee na daal message la fi bàyyi. message boobu nag ñun ñoo am. nee na message boobu nag ñun ñoo am. mooy ci wàllu liggéey bi. ci wàllu liggéey bi ci wàllu peuple yi. ci wàllu peuple yi wàllu état yi. ci wàllu état yi. ñu xam ne que message boobu dañ ko war a sàmm. nee na daal ñu xam ne message yu Moussa Ngom dañ ko war a sàmm. fii àdduna la dañuy paas dañ fi jaar ñun ñëpp. Youssou Ndour nee na fii àdduna la dañ fi paas dañuy jaar rek dem suñu yoon. kon nag li am solo mooy nit ki nit ki bàyyi. li am solo daal mooy li fi nit ki bàyyi. maa ngi seede ne. Youssou Ndour mu ne mi ngi seede ne. grand africain dem na. africain bu mag dem na. grand gambien dem na. nee na gambien bu mag dem na. sénégalais bu mag tamit dem na. sénégalais bu mag dem na. taalibe bu mag dem na. nee na it taalibe bu mag dem na. naka ñi ngi masawu njaboot gi. nee na ñi ngi masawu njaboot gi. yéen wax ñu muñ. ni leen nanu muñ. yàllaay dogal. yàlla sunu borom mooy dogal. Moussa mii de am nañ ci moom yaakaar. waaye Moussa mii de am nañ ci moom yaakaar. ndax taxawaayam. ndax taxawaayam. benn yoon. benn yoon. rek euh, wan na ginnaaw nit ñi. wan na ginnaaw nit ñi. musa moo mës a taxaw. Moussa moo mës a taxaw. di incarner diggante nit ak nit. di incarner diggante nit ak morom. kon nag waaw léegi fi mu ne xam nga comme dañ ko war a yóbbu Touba. waaye nag comme que dañ ko war a yóbbu Touba. il faut ñu gàttal wax yi. waaye nee na kon il faut ñu gàttal wax yi. maa ngi gërëm. nee na mi ngi gërëm famille bi njabootam ci cër boobu ci cër boobu nga xam ne ko jox nañ ñu ko cër boobu nga xam ne jox nañ ko musiciens yi jaarale ko ci turam incha allah nee na bu neexee yàlla bu ñu génnee ci yi ñu ne bu nu génnee ci yi ñu ne dinañu dem ba Gambie nu dem ba Gambie fekk fa Ablaye Ngom fekk fa Ablaye Ngom fekk fa famille bi fekk fa famille bi jaale leen jaale leen ndax loolu moo nu war ndaxte loolu kat moo leen war dañ koo séq ak Moussa ndax lu nu sekkoon la ak Moussa réew mi séq koog réew mi séq koog Moussa jërëjëf Youssou mooy kaddu yooyu la fi yëkkati